adressé message à tes camarades lan nga leen di lan nga leen di wax. ñan sa camarade de parti. waaw mais je vais leur dire euh, vraiment nañu déggal seen bopp parce que là aussi je vais pas utiliser le, la langue de bois bu fekkee ne nit nee na d'accord na dafa war prouver lu tax mu ne d'accord na dafa war futteeku dafa liggéey. dafa nekk ci terrain bi. ñu bari ci ñoom de futteeku ñu c'est le moment ñu futteeku nekk ci terrain bi parce que balaa nga ne am ne fa et ça c'est important moi je pense que ceux qui ont déjà décidé d'être avec le candidat Amadou Ba il faut pas qu'ils jour double jeu je pèse bien mes mots ceux qui ont dit qu'ils sont avec le candidat Amadou Ba il faut qu'ils arrêtent de jouer des doubles jeux il faut ñu jàpp ni candidat bi mooy le candidat qui a été choisi par le président ñu def de sorte que lii tax candidat bi gagne et ça c'est important et qu'on fasse tout aussi pour taire les querelles internes loolu de li leen nar a rey ci la bokk. non ba rey ñu lan moo ñu rey. querelle interne moo tax ngeen. perte ban parti moom querelle interne ngeen perte. Euh, ban parti ban parti au pouvoir au monde nga gis mu am. querelle interne non chez vous moom chez vous. moom c'est c'est c'est Maïmouna c'est chez vous moom c'est exagéré. Maïmouna c'est-à-dire yéen bu ñu tegee bu ñu tegee ndap li euh, waa APR ils préfèrent ñëpp ñàkk. ndab bu tuuru ñëpp ñàq. non d' ak yow. si affaire culture boobu la ñu am ak yow ci loolu. affaire non boobu la ñu am d' accord ma ak loolu ci loolu d' ci étiquette boobu ngay collé. affaire culture boobu la ñu ma <laughs> parce que euh, bu doon loolu le président du gagné élection 2012 bu doon loolu le président du gagné élection 2019 loolu d' accord ma ak yow. il peut y avoir des des malentendus des des des des problèmes de d' entente. au sein du groupe mais pas euh, façon bi nga ko waxee. Hmm. non. ça vous avez du mal à vous entendre. non ma ne problème entente partout la xew mais ci biir kër yi même diggante soxna ak borom këram parfois il y a des problèmes d'entente loolu ça c'est la vie c'est des question de vie. problème bi bi ñu am moom la parti yépp am mais ñun nag am damu fës c'est parce que est au pouvoir c'est normal que parti au pouvoir que mu am des chocs d'ambition